yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi kii jullit mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax di leen ndokkeel bu baax di jiital ci nuyoo bi saaxibatul fadil Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ko ñaanal bu baax moom li nga xam ne mooy borom liggéey bi tey nag ñoo amoon ay gan yoo xamante ni ñoom la ñuy wax waa di jàpp ci liggéey bi jàppin wu jéggi dayo ñu ñëwoon fi nag daayira Moukhaddamatoul Khidma dalal leen dalal leen tey ci barabu tedd bi ci grande mosquée bu Touba ngir ñu ànd ak ñun waxtaan wi gannaaw waxtaan wi itam ñu ànd ak ñun ndog yi fekk fi fekk si fi itam seen mag ñi nga xamante ni ñooy grand opérateur yi nga xam ñoo nekk Touba te sëñ Moussa Mbaye feggoo nii sunu wet xam naa ne bokk na ci ñi nga xam ne dana jël kàddu incha allah. dalal gi nag ñaari yëf da ci am ñoom dañuy ay bokk ñu wuutu leen rek ci barab bi rawatina waxtu wu nekk tam seen i jëf ak seeni i addiya di ñëw ci barab bu tedd bi moo taxoon ndogu gi sax am na solo waaye ñu ñëwoon bañ gis liggéey bi nga xam ne seeni jëf waxtu wu nekk du tegeeku muy koor ak budul koor bañ xam ne seen jëf yi jëf di ko andi ci barab bi jëf ji moo nekk nii ndax ñoom ñu ne ñoom ñoo seq liggéey bi waaye nag benn lañ ndax ay doomi soxna rek ñoo ci nekk waaye nag di yaxantu la ñuy la leen suñu borom di wërsëgale ci seen alal ñu koy àndaat ak ñun liggéey bi kon ñu ngi leen a xamaleek bokk yi nga xamante ne ñoo leen ñoo ñuy topp ci réew mi ak ci bitim yëpp di leen sant bu baax ci turu daayira Moukhaddamatoul Khidma xam naa duñ njëkkanteeg waxtu wi jox leen ñu ubbi jotaay bi dafa mel ne ñaar ba ñett ci ñoom danañ jël kàddu ci turu waa Aziz ak mboolem ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci wàllu njënd ak jaay ci biir dëkk bi ak biti dëkk bi yëpp kon bisimilah daayira bu ne am na solo waaye seen daayira bi moo ci raw ndax yàlla wax na allazina atamahum min juu'in wa amanahum min xawfin te lii ngeen def kenn ku ne xam ne day tàggale ak nit ak xiif te nit bu xiifee ak jaamu yàllaam day des kon nag bu ngeen doon dàkk li yàlla gën a bëgg ci àdduna weer wi si la bokk ndax li yàlla gën a sémbule mooy alxuraan si weer wi la ko wàccee guddi gi ëpp doole ci guddi yi ci weer wi la ko suñu borom wàccee kon mel naa ni da ngeen doon dàkk waaye diir ngeen jam ngeen yàlla na ngeen ci am ngërëmal Serigne Touba ci barkeb alxuraanul karim tey jii nag mboolem assise ak inaakuwa ak mboolem économie yi ñuy wax yëpp si dëkk bi dan fee teew ci kilifteefuk alhaaji Moustapha Moussa Mbaye mii mu ànd ak Serigne Fallou Galassuma bi jiite Assis ak alaaji Amdi Gueye ak Serigne Cheikh Sarr Oustaz ak sëñ Moudou Kara ak Serigne Atex Jigal ak sëñ mu Dame Dieng ak Serigne maxtaar Gueye ak Serigne Mountakha Mbaye ak Serigne Mamour Kébé ak Serigne Abdoulaye Touré ak Serigne Galas Diop ak Serigne Mourtala Sey ak Serigne Mbacke Diba ak Serigne Anne ak Serigne Touba Mbaye ak Serigne Bàcci Gueye Massamba ak Serigne Pape Diop ak mboolem économistes yi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi rawatina suñu soxna yee toog si njiitu soxna Yacine Diop ak soxna May Touré ak soxna Astou Dieng ak soxna Asta Sylla yéen nag Moukhaddamatoul Khidma ñu di leen wax ni leen ñun de lépp luñ mënan di def si adduna rawatina si yéen ñii mu jëm si yéen dan daan dàkk waaye tey nan xam ne jam nanu ndax seen liggéey bi kay modifié na lool ndax kat na leen leer ne li ko sëñ bi waxee léegi ay mbokk lanu ay taalibe lañ nag waaye nag ñu bëgg ñu baax la nag te nag ñu fas yéenee ànd ak yéen liggéey bii la ndax liggéey bu si nekk nag mënees na see diir bëgg sëriñ bi ak bëgg yàlla waaye seen liggéey bi da nga siy fekk bëggug sëriñ Tuubaa ak bëgg yàlla ñi nga xamante ne bëgg na ko ku ko jàpp ak ku dimbali ay jullit si weer wi nga xamante ne mooy weeru Ramadan nun waa ACIS ñoo ngi ni économie si dëkk bi yëpp a ngi nii ubbi suñuy buntu tëjalul leen dara rawatina nag yéen ñi nga xamante ni yéenay Moukhaddamatoul Khidma lépp lu des daal si yéen la des waaye ñun pare nañ jox nañ leen suñu bopp ndax li ngeen ñuy laaj wala li ngeen taxaw ñu di leen ko jox gis nañ fi ngeen koy dugal te nit ki nag soo xesee gis li nga koy jox fi nga koy dugal moomatoo sa bopp kon ñoo ngi leen di sant di leen ñaanal seen liggéey bi yàlla na bokk si liggéey yàlla gën a nangu yëpp kon dañuy daal jël kàddu gi jox ko suñu doyen alhaaji Moussa Mbaye salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi dayra Moukhaddamatoul Khidma waa mboolem commerçant yi Touba yi yëpp rek mën na ni ñi ngi nii taxaw ci seen wet ñëw di leen di nuyu di leen di siyaare di leen di tatagal di leen di sant bu baaxatim ah, wax ji moom ni ko ala ala sek mi doon waxee rek ak eh, alaaji Moussa noon dong la demee ñun moom sant rek lan lan la ñuy def ndax yéen da ngeen a nekk ci liggéey boo xamante ni bii daa doon liggéey bu ama am solo ngeen di liggéeyal yàlla di liggéeyal sëriñ Touba te lii ngeen di def yaakaar naa yi benn liggéey gën koo kawee ci liggéey bi ñuy liggéeyal Serigne Touba ndax moo di di jox aw ñam di dimbali way néew doole yi di toppatoo jumaa ji jumaa ji yi nga xamante ni bokk na ci li nga xam ne moom la sëñ bi bokk na yi nga xam ne moom la fi sëñ bi bàyyi ngeen koy toppatoo toppatoo bu rafet ku fi julli sa ma xolam dana sedd guyi ah képp koo xamante ni ah, weeru koor ñëw naa tim foo mën a nekk ci dëkk bi boo fi ñëwee sa xol dana sedd guyi ndax ñun bis bu ne dañ fiy jaar waaye liñ fiy gis muy mu fi dugg ci mbooloo ñun sax dañuy jaaxal ñun nag euh, ñun ñii nga xamante ni ñoo taxaw nag nekk commerçant yi dëkk bi ñu ni euh, nekk waa ACIS ak mboolem commerçant yi ci dëkk bi yëpp rek ñun liñ war a def mooy ànd ànd ak yéen ci liggéey bi ndax lii ngeen di def kat ñoo fi waroon a taxaw di ko def dëkk bi nag fi mu ne moom sant yàlla rek lan war a def ndax bu njëkkan ay organisation néewoon na fi lool waaye léegi ay organisation yu bari ñi ngi fi ñu mel ni ay yéen waa Moukhaddamatoul ma yaakaar naa yàgg ngeen ci lool yéen wane yoon waaye yéen a ngi gis Touba ca kanam gis yeneen gis yeneen gis yeneen loolu nag yaakaar naa mooy defal mbooroo ndax mbooloo lu bari bari ak lu seen jëf am am doole te amuñu euh, organisation jëf ja du neex a gis lii ñu lii ngeen def nag moo moo ci yóbbu Touba ci kanam yóbbu ci ñeneen ba andi ñu ci ñun waa ACIS ñi ñun waa ACIS ñii bi ñuy formé suñu mbootaay gii dañ koo defan ngir suñu bopp ngir aar suñu commerce ngir lu bëgg ñëw yàqal nu suñu liggéey ñu ñu ñu jàkkaarloog moom loolaa tam yàlla dimbali na ba liñ ci bëgg ña ngi ko cay am waaye nag ñu xamaat ni mbootaay gi tam war nañ cee mën a liggéeyal Serigne Touba loolu moo taxat ñu sóobu ci liggéeyal Serigne Touba bi ba moo tax ñu dem ca université bee jël fa liggéey boo xamante ni yaakaar naa ku ko gis di nga xam ni li nu war ñi ngi ci ah boole ko ak nag bëgg ko fas ko yéenee boole tim nag ak lii nga xamante ni moom la ñuy def dañ koo fas yéene yokk te mooy bu weeru koor dikkee li nu war ñu def ko yéen ñi nga xamante ni yéen a nekk fii organisé ba mën a di jox ñëpp ndogu ñu mën leen di leen di jàppale luñ mën a jàpp luñ leen defal ren dañuy fas yéene bu déwénee ñu fas ko yéene yokk ndax euh, ñi ci suñ ginnaaw loolu rek moom lan nu laaj te nin ko nin koy defee fii itam dina dañ ko def Touba ci kanam te fas nañ yéene itam dañ koo fas di yéene def ci marché ndax marché itam ñu bare nga fa ñoo xam ñu néew doole ñoo xam ni deen soxla lu ñu yóbbu seen kër ak yooyu te ñi fa yàlla dimbalee itam ban man daraa itam kon war na noo mën a boole dara loo xamante ni bu weeru koor wi dikkee ñu ñu man ñu mën caa jox way néew doole kenn ku ne am ci loo yóbbu sa kër kon nin koy defee nii ci jumaa ji ni leen ko fas yéene taxawal ci marché ni leen ko fas yéene taxawal ci dëkk bi te fas ko yéene def mbootaay goo xam ne den ci boole lin am fas yéene di ci liggéeyal Serigne Touba ndax fii kat dara des fi lu dul liggéeyal Serigne Touba coow li bari na lool waaye dara nekk fi lu dul liggéeyal Serigne Touba ku liggéeyul Serigne Touba da ngay perte rek kon nag suñu ànd bii ñu ànd nii euh, liggéey suñu bopp taxan ñu def ko defoon ko ab association boo xam ne ngir aar suñu bopp ci wàllu commerce ndax danoo deman ba néewal ñu ci doole lool léeg-léeg ay gars yi jógee ci ginnaaw ni këy ci commerçant jël la am lépp yóbbu ko te du xam fenn fu mu koy jooyee ji loola nag yàlla dimbali nañ ba ña nga cay dox doxin waam solo waaye fas nañ yéene nag ànd ak ñëpp itam liggéeyal ci sëriñ Touba baax nuyuwaat ñëpp di nuyu sëriñ Afi Bousso mi nga xam te mooy njiitul eh, daayira mu xadimatul xidma di ko siyaare baax a baax di ko ñaanal di am mbégte kontaan bu baax a baax ci suñu mbokk commerçant yi nga xam tey dañoo ñëwoon seet si liggéey bi tey bi ñu ñëwee li ñu fi fekk mooy fekk nañ fi waxtaankat boo xam ne doon ak nu ñuy loolu rek jaroon nañu dagg suñu yitte yëpp ñëw di fi si waxtu wekk te bi ñëwee wax di yàlla gis nañ ki nga xam ne moo doon waxtaan mu jàngal laan ñu diggante jaay muy kiy jënd ak kiy jaay kenn ku ne mën cee ñëw ko xencu ñëw di ci jàng si ndax mboolem ki na tey ci wi nan la ñuy jaay ak la ñuy ak la nga moom la ca lislaam di wattandiku te loolu rek dafa doy sëkk ndax kuy jaay ak kuy jënd ku ne war naa xam lan la lislaam euh, tere ci am jaay ak lan la bëgg ci jaay kon tey bu ñëwee ñu in thème waxtaane ko rek doyoon na sëkk ñu waat ñu wëlbatiwaat duggaat ci biir liggéey bi nga xam te ni ñun lañ koy defal